ñu ngi leen di nuyoo fii tey ci seen jotaayu daari daayira yi muy émission daayira yi tey jii nag dañoo ñëw ci barab boo xamante ni diwaanu ndakaaru la nekk ñu ànd feek jëwriñ joo xamante ni yaakaar naa ko ràññele samay jotaay war nga ko see ràññele mu woon ñu fi tey muy jëwriñ Ahmadul Khadim Amar ngir daayira boo xamante ni nii ñu am pasteef lañ ñu bëgg sëriñ bi lañ ñu jeex ci liggéeyu sëriñ bi lañ ñoom lañ fas yéene seet ci tey joriñ nyilai ngi lay nuyu bu baax di la siyaare salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mboolem waa jësbul di jaare len nuyoo bi ci sama jawriñ sëñ baylo mi sama buntu ci di am telol lool ci seen teewaay fii nii di ñaan sam borom subhanahu wa taala jéego yi ngeen seq bi ngeen di ñëw ak yi ngeen di seq bi ngeen di suñ borom def ci barke te def barke ci site bi ñu leen di dalal ak jàmm fii ci maris ci jataay bii ngeen fas yéene ànd ak waa Daara Islaahu Daarayni bu national lañuy wax sax kay mi ngi fii ci Maris waaye ay gox yu fasantikoo la nekk ñenn ñi ñu ngi bawoo ba Touba ñenn ñi ñu ngi bawoo jaaxaw jaxaw ak yeneen région yi nekk euh, ci Sénégal ñu ñëw daje fii Maris tey ngir ubbi si daaray Dakar. jërëjëf Ahmadul Khadim si kàddu yu am solo yooyu ak nuyoo bu am solo boobu comme ni nga ko waxee tey ñi ngi fii ci Maristes si daayira bii di Islaahu Daarayni ñoom la ñu fas yéene seq ak ñoom wax waxtaan waaye ni niñ ko waxee woon rek Jazbul Mouride fépp ab daayira nekk incha allah bu waxtaaneek ñun mu jokkuñu incha allah daañu fa ñëw waxtaan ak ñoom ci mbiru daayira bi tàmbalik daayira bi ni daayira bi doxee waaye rawati nag seenu mbébét ak mbooleem loo xamante ni rek murid yi buñ ko déggee dana yokk seen Pastef waaye dana leen jariñ bu baax a baax waaye mbooleem koo xamante ni tamit am nga cant mbaa ziar incha allah boo ko waxee ak ñun danañ ànd ak liggéey bi kon nañ àndandoo jëwriñ Ahmadul Khadim mi nga xamante ni moo ñu fi indi ñu tàbbi xool li nga xamante ni mooy daayira bi kon bismillah jërë ngeen jëf أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب الورى لك المحامد فصل على الذي من اكتفى به وصل بغية همتي وأقصى مطلبي محمد وسيلتي لعربي بآله وصحب أهل القدر وطاب عينا واشرح عندي صدري أمري يسر وزدني علما أطاورا علامة خدمة مبكي في تيويب نيجي لين نيو لين زيارة لين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي جيتل جي زيارة بي شيخ محمد المنتقى di ñaan sun borom te gën koo wéral tey sàkku ci mbooloo mi yëpp nag ñu teewlu ci seeni xol ñaanal ko ndax lu may faral di wax la lu bari di wax ne am kilifa gu ko mat yombut waaye am kilifa mu mat ko ba ëpp la kilifa walbati ku nekk sab sak ci bu toogee ci bu doxee ci bu waxee ci bu noppee kon luñ ko ñaanal rek doyut di siyaara bu baax itam wax dëgg yàlla sun soppeeb xol boo xam ne yàllaa ngi dogal sunu gisee muy sëriñ saalihu mii ñu koy wax sëriñ saalihu mbàkke xasida di nit ku baax koo xam ne xam nañ ci moom yu baree bari léegi nii rek biñ toogee maa ngi koy nettali yoo xam ne xam naa jombut fàtte woon na ko ñu ngi koy siyaara bu baax nag di ko jégglu kàddu yi ndax jataay bi ab jataayama ndax ñaar benn mooy kilifa jataay bi ñaareel bi ci jagleem lañ nekk te mbir mu nekk kañ ko jagleel moo ko moom mu doon géeja dama naan ñun ca tefes ga lañu yem moom moo xuus ba ca biir kon kàddu yi ñuy yëkkati ñu ngi ko koy jéggulu te di ko ñaan nag ngir jëmmi Sëriñ Tuuba mu doon kàddu yi ñuy ubbee te moom mu tëj ko ci soññee ndax kàddu yi li tax ñu jël ko dafa mel ne daa mënta ñàkk ndax ay seere suñ ñëw gii ñu ñëw ànd ak mbokk yi ñu àndal damay seere ne sëriñ bi moo not suñuy jëmm bañ ñëw waaye lu mel nii maa ngi koy doog wuyu si ndakaaru wallahi lu mel nii maa ngi si ndakaaru bi ma jëwrin dee ñëwee wax ma ko sama xol bësante ne damaa war a ñëw wala wanaa sëñ Jibril mii bam ñëw ma laaj ko mu ne ma ñoom de bu bu ko bu ko jamono mayee rek bu mënta ñëw it dañ ñëwoon ñu wax ko ngir ngeen ñaanal ñu ci waaye mu mel ne samay xel bi muy nattale ñëw gi moo not ma am gàllankoor it ndax sama waruwaay am gàllankooru mënta ñëw ma ne loolu daal mel na ne nar naa doon ngànt waaye ma bàyyi lépp ci loxoy sëñ bi sëriñ bii ñoo bokk yor daara muy sëriñ Mbàkke Mbàkke mii bi njàngalee tey ba 11 nga xam ne jàppoon naa ne man ñëw gi moom fomm na ci la sama xel ne yar ci mbokk moo xam ne man ak moom benn lañ ndax suñuy waajuru bokk ma woo ko mu ne ma oto bi de mi ngi fii deful dara ma daal di fay dem jël ko jël ko ñëw nga xam ne kon ñëw gi moom dafa mel ne daa mëntoon a ñàkk bi ñuy ñëw itam ànd nañu ay mbokk sëriñ maam Cheikh Bousso mii di sëtu sëriñ Bousso be ak sëriñ Mara Guèye di sëtu sëriñ sàmba Dieye di seexu maam Seex Anta ak suñu xaadim si lemee nga xam ne moom it wax dëgg nit ku baax la taalib sëñ Abdourahman Daarul Muxti nekkoon ca moom kàddu yi nag dañuy seere rek ne daara ji daa sosoo suñ kanam njàng mii ñuy wax itam ñu daa ko dégloo fu sori ñoom daawuñ yëg waaye dafa mel ne day day def booy def lool yàllaa tax fawu nga feeñ donte da ngaa nëbbutu sëñ fàllu mii moo koy wax taman xaw ma fu mu ko yëgee waaye dama daa ñëw ba jéggi raay bi rek taxaw di déglu seen répétition yi waaye benn benn bis rek laa toog ci seeni jataay mu nettali ko dama daa doxantu ba foofu bu ñuy répété ma di ko déglu mu ñu am passif ñoo xam ne seen mbooloo mi ba ma ca njëkkee teew ca jataayu njëkk yi am na lu ma leen waxoon ne leen sëriñ sëriñ bi sun boroom daf koo jox lislaam war koo yeesal bind ko ci barab yu baree bari te li doon baaxub suñu boroom ci yeesal lislaam mooy ku yeesal bu ñu amaatee téeméeri at keneen day ñëw waaye sëriñ bi ak xëram ak xam ne suñu boroom tëyewul dara daa far ñaan ko lépp ginnaaw yeesal lu ràpp la yeesal waaye sëriñ bi ci xerañam dafa ñaan sun boroom li ñuy wax islaax islaax bu dee am du ràpp bañ koy yeesal موم لا نيان واخ نه ول تدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي يا سون بروم نان ما ديفال كوي ييوينال سي سما لوخو ديف كو سا بير كير تا ساخال كو في بوم في جوك موتاخ سين توروي بما ديغ نيون اصلاح داري ني بابا خماغوما ني امنا خاسيرو كو تودي اصلاح داري ني خاوماكو وون دا جاب ني رك دافلي ني ديكال ولا نيو جوخ لين كو وايي ميرانغي motax may wax ne bu ngeen gëné yok pass pass te góorgóorlu gëm naa ne fu ne mën ngeen fa ag mo na ma leen ko da waxe rek mbolo muñ am yaakar la waxuñ ko nak ngir ngir ngir bëgg wax waxuñ ko ngir bëgg wax waye dañ koy séré ndax ba ngeen tambalé ba légui dox jëm kanam ngeen di def ak dox dox doxinu Pastef loolu ñu ngi koy séré ci yéen a'udhu billahi بسم الله إن ولي الله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من ميلي لخير ردا ومن سدودي عما سن أو فردا بسم الإله الذي القرآن قد نسلا منه ابتدائي وأرجو عنده النسلا واجعل كلامي راشدا ومرسدا وفكرتي نوير وقلبي أرسدا اجعل بجاه المصطفى كلامي على عداك ربي kal kilaami mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa ñun ñëpp Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu boroom mu waneeti kiimaan ci ak dundam ak ug wéram ba naal yi mu naalal Sëñ Tuubaa yëpp àgg fu kawe kawe njort te nu ànd koog moom barkit mbootum xasida di nuyu bu baax sunu mbokk mu baax mi di sëriñ Xaafiya ni mu ko waxee rek dafa ma dal ci moom yëg yëg-yëg day am fi mu ne danga gis nit tey nga ko njëkk a gis doo man ci moom dara waaye noonu ngay gisee nit tey nga ko njëkk a gis mu gënal la sax sa bopp li ko waral mooy sunu boroom ruu yi ba leen bindee ñi wara ànd ñëpp da leen a boole waaye léppam da ko da daf koo def ci ay dikk ak i waxtu lu jot rek sotti moo tax suñ bay jaxate di wax ne lu jot nga jot ca takkat loo xam ne jot ca jotul doo daw ba jot ca bàyyil kër kër gi moo lu la jot muñal te bul dox di jàmbat coono foo mën a jëm ku am li ngay wut sa waamee coono yépp sawet lu yàlla feq mu ñëw loo xam ne féq ko nag loo feq feq du ñëw lii foog ko yóbbaale kon sëriñ bi ñu ngi jokk kóllëre gi bu baax ak bokk gi te ñaan sunu borom it mu ajal nu ko ca maam yooyee nga xam ne seenub ànd ak seenub taxawaay ci diine may na leen lu gën a rafet seen jëf musula am te dootu am ba mukk li nga wax nag dafa mat sëkk doy sëkk ba dara mënu cee dolli ko waaye lu baax ci boppam moo doy waa islaahu daare ni sama digg ak ñoom yàlla nga ko jaarale ci jëmm ju ñuy wax Sidil Muxtaar Fall mm-hmm. ma xamanteek moom muy ko am pëstéef mm-hmm. te ma yëg ci moom it muy dund Sëñ Tuubaa mm-hmm. ci gannaaw yàlla ci la ci la sama xamanteek ñoom jaare ba ma leen xamee ba tayit lii nga wax sëñ Tuubaa rek laa gis ñoom ndax sëriñ bi moom li muy seq ak ku mën a doon ñaar dong la muy yitte ak pas pas pas loolu rek la mën a seq nit su yitte ji xasee mat pas pas bi mat nag seetatul gone nga ak mag nga walla lii nga walla laa moom li muy def da koy def rek tey dafa mel ne ni nga xamee ne sunu borom mas mas naa wax iblis ne ko dama lay yebal ci yonent bi tey mhm. wax yonent bi ne ko iblis dana ñëw ci yow mhm. diglu ko bu baax mhm. lu mu la wax dëgg la ne iblis boo ko fenee dinaa la ca saasa dinaa la alag dinaa la euh, dàkku dinaa la dinaa la dinaa jeexal sa mbir mu ne ko waat naa ko ci sa màgg gi ne du ko fen lu ma ko wax dëgg la ñu ñëwee yonent bi ne ko yaa malaoni mu ne ko naam <laughs> yow ku ñu rëbb ki mu ne ko waaw mu ne ko koo gën a bëgg ci àdduna koo bañ a gën a bañ ci àdduna mu ne ko yow mu ne ko lu tax mu ne ko da nga gën a baax moo tax mu ne ko gannaaw boo ma bañee koo ci teg mu ne ko ndaw luy jàmm yàlla ndax damaa xam ne sama fiir yi ni mu li ma fekk sos ko ba muy niru dara te du dara ndaw lu ko fi mën a dëddu dem di jàmm ji yàlla ñu ma la bañee laa koy bañee loolu bokk na ci seen waxtaan woowee moo tax sëñ Tuubaa bi mu ñëwee nag yitte woon yitte woo ndaw ñi yitteem jëpp jublu ci moo tax it yàlla defal ko ci loo xam ne néew na nga gis ko fenn sëñ bay jaxati naan ko kuy topp yàlla te géntul loolu yaa ko xewal mm. moo tax ba koo gis mu am xam-xam bu rëy te jàngul ndax yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam dane man amila bima alima awrathahu llahu ilma ma lam yaalam képp koo xam ne jëfe nga li nga xam lu mu néew néew suñu borom daf lay doon loo xam-xam boo xam ne des ko jàng moo tax sëriñ bi yittem jëpp ni ma ko waxee mu jëmale ko ci ndaw ñi saa yu ne daf leen daa yittewoo li muy def ci ñoom it daw ko defloo kenn wana nyam na bis eh, ndaw siyaara si ko bay dem mu len yene ngi janga ñu ko déedéet mu yene ngi liggéey ñu ko déedéet mu ne toroxa ci topp de ndaw day bu jàngut liggéeyu day torox rek kaay len ñu ñëw mu ne leen ma wax len li ngeen war a yittewoo mu ko bëgg nañ koo xam kay mu ne mucc ak farlu ci ndax su ngeen muccee kat lu bax lu dikk fi la len di fekk bu ngeen jubee lu baax loole bu dikkee day dal yéen te bu dal ak yéen buy dem bàyyi leen ak dara te kuy def lu baax lu dikk dalag ak yow buy dem balaak dara bu yàggee danga nga bari le daane mucc nag juróom lañ koy sàkkoo jubit juróom ku bëgg mucc del warmaal ku mat a warmaal di warmaal lu mat a warmaal luñ ne baax na nga def ko te yàlla tax luñ ne bon na nga ba ko te yàlla tax te ñaan yàlla musal la ku bëgg jub bul tooñ mukk bul fayo ak tooñ bul xëccoo te luñ ne jub na nga ne ca tey ñaan yàlla jubal la loolu mooy ndénkaane sëñ Tuubaa yàlla nañ ci yàlla sax waxtu yi dafa xat waaye mënoon naa gën a yaatu waaye fii ngeen teg seen dànk daal fi la te bu bu leen ko wàcc mukk incha allah Hallelujah. <laughs> Yes, I know. Hey. mbokk yi jërë ngeen jëf comme niñ leen ko waxee woon léegi rek ñi ngi fii si biir baas bi waaye tamit gis ngeen njàng mi gis ngeen ñi nga xamante ni mooy mbooloo mi ñëpp ñëw nañu wuy si li nga xamante ni moom la fi jëwriñ yi toog muy sëñ Ahmadul Khadim Amar ak ki nga xamante ni mooy sëñ Fallou Joxaane jiite li nga xamante ni mooy liggéey bi ñoom lañ bëgg sax seq ñoom waxtaan ngir gën leen a xamale tey daayira bi di ñëw mooy ban daayira day jox jeurign ji seigne fallou rek mu di nuyo ba nopi ñu dogo tambali li nga xam wax na waxtan a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi sidni ya hilman wa sidni ya sahyan ya kariman ilayhi dahban anini abdi kasfa mustaqiman muniban fi kitabin wa lil funun assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñong leen nuyu te di leen siaré te leen jéggulu leen lu bal ak di ñaanal señ Muntaxa mu yàgg fi loolu tam ànd wër ba naal yi nga xam naal na ngir sémb ko ànd ko talibé yi mo eggale ko nim ko bëgg ànd ko mbolem talibé yi barke señ tuba ñoo ngi leen nuyu di nuyu mbolem képp ko rek mi ngi déglu ak waa bi jëssul murid ñoo ngi nuyu baax di nuyu ñëpp la nuyu baax bah, baax a baax jërëjëf jërëjëf señ fallu xamna bala ñu jox señ ahmadou Khadim mu mu mu nuyo dafa am laaj yo xamante dañ ko bëgg laaj ndax nit ki euh, lu nekk war nga xam li nga moy lii li ñuy wax naan lu waaye xamul baatin ba du ko fonk bëgg nañu xam tur bi muy daayira bii di islaaxu daayira ni nu ngi sosoo ak ni tur bu dikkee jërëjëf laaj bi am na solo ñoo ngi la sant la ci gërëm islaaxu daayira nii mi ngi sosoo dëkk bu ñu naan Touba Daarul Marnaan eh, ay jëwrin yu am pas-pas jëwrin yu dëggu te bëgg lu baax te bëgg am yéene liggéey Sëñ Tuubaa ñoo ko taxawal suñu borom nag dogal na ñaar ñi nga xam ne ñoom la ngénne seen dënn di suñ muudu kay ak sëriñ naa Sey ñoom ñoo ko sos ci vers 2009 ci lañ ko sos waaye biñ ko sosee dañoo ko am nuñ ko taxawalee maanaam dañoo dem ci ñi nga xam ne njàngum xasida ñor na leen dem dëggu ci ñoom ñu waxtaan ak ñoom convaincre leen ñu ñëw ànd ak ñu liggéey sëñ Touba ci lañ ko taxawalee mu nekk kuréel gu dëgër biñ koy taxawal mu nekkoon génn kuréel ba tey mu egg ci ba ñu wara ubbi si fi dara Dakar ak fu mëna doon xeyna buñu jëne ci kanam dañu gëna yaral yaatal ra daal Isnahou ni mi ngi soso ci Touba darul manan wa bi mi soso tam dara sababu ko lumay xenju bëgg-bëgg Sëñ Touba fas yéene ko Touba ci Touba yi wa loolu mo nekkon sabab bëggoon xam tamit euh, ndax bari na daayira yo xamanteni ni sëriñ bi mo leen di joxe tour ndax bi non la démé wala tur bi num mu wa bi nak mom Eh, dañ ñenn ci benn jëwriñ ju ñuy wax Serigne Jibril Ndim tam bokk ci mbooloo mi bi ñu ko sosee dañ ne ñun waroon na am tur ndax fu nu masaan dem dañuy tuddee fédération rek ñu ne fédération moom du tur waaye lan lañ war tudd ñii ne nañ dem sëñ bi wuti tur ñu ne ah tur de mën nañ koo tànn xasida yi bari na fi jënd jëwriñ ju ñuy wax sëñ Jibril Ndim ci làmmiñam am barke ci la wax ne mën nañ ko tuddee Islaahu Daarayni ñun boobu sax xamuñu Islaahu Daarayni waaye ñun ndax Islaahu Daarayni aw tur la tur xasida la ñu ne waaw ñu ne kon nañ ko ko tuddee waaw ci sabab boobu ci la jógee islaamu daare ne jëwriñ di ñu wax sëñ Jibril Ndim ci kàddoom la jógee waaye dellu nañ tamit dem ci sëñ bi wax ko na ko tur wi ci suñu biir lañ ko tànnee waaye sëñ bi delloowaat na ko. tur woowu moom lu muy wundu. waa tur woowu islaamu daare moo aj yéwénal fii ak fanu jëm waaw tur wi loolu lay fekk lay tekki waaw fii waaw ñaari kër yi waaw fii ak fanu jëm waaw. jërëjëf jërëjëf sëñ Fallou si kàddu yi am solo xam naa sëñ Fallou daa mel ni Touba ndax ndax daayira bi moom nan lay demee par par par par par bis lay am wala dañuy daayira noonu wala dañuy daje di di di di jàngee. waaw xam nga daayira bi nag dafa yaatu léegi dafa am bërëb yi bërëb yu fasantikoo léegi bërëb bu ci ne am nga say jour yoo xam ne yaa koy def te doo ko bokk keneen ndax xam nga Touba ñoom ajuma lañ am. bu doon bu doon fii fi mu doon lañ naan dimanche lañ am kon ñun sunu suñu bis bu dee répression yi Touba yi moom tey par exemple soo ñëwoon ci jëwriñ daara Touba moom dana leeral li ñuy doxee. soo ñëwoon ci dóori daaru Dakar dañ tax waaye l'essentiel ñun fu ci ne rek kuréel yëpp ñu ngi répété barab yi ci ne nag kuréel yi fa am buñ ci egg tamit boo ko bëggee dañ la ko leeral kuréel gu ne bañ fa am lañ fa am ci ab nit ña ko jiite tamit boo bëggee tamit dañ la ko leeral waaye l'essentiel comme maanaam lu mën a xew mooy euh, liggéey bi moom Touba ak ni muy répété euh, Jaxaaw ak ni muy répété ba ci ba ci Firdaws si ni muy répété maanaam fu ci ne ay pàcc la yoo xam ne yaa xam waxtu ya ngay ya ngay jekku pour meuna dajé pour meuna doxal sa liggéey ci wàllu rab. bu Touba mom, sen bos mi démé wa Touba nak mom ni mi démé moy aljuma ca ma gannaaw timis ñom ci lañu répété jëm ba 22h yeen saay dañu def ay répétition yo xamné yendu lay doon aljuma ci suba ba tisbar wala yeen saay ba takusan benen bi ci dess tamit loolu mo jëm ci walu répétition activité yi itam ni mbolo mi def manam activité yi bokku na ci. maanaam day am daje yoo xam ne dinañ ko def muy daje général yoo xam ne góor ñi ak jigéen dinañ daje ci benn tàkkusaan boo xam ne pour waxtaanee li nga xam ne moom lañ bokk tamit ko séddoo daje yooyu tamit na ci daje yoo xam ne guddi ajuma lañ xam ne góor yàlla ñoo ci daje di toog di di yëkkati xasida moom it day tàmbalee gannaaw gee ba ba ba vingt na xam ne dañ koy def am na ci ay commission yu ne ci biir yoo xam ne danañ faral di daje di waxtaanee ci lépp loo xam ne day joyante liggéey bi commission yooyu tamit am na culturel amna euh, conservatoire amna social amna organisation amna administration amna finance yépp dañuy dajé di waxtaan ci lépp li nga xam mo joy jooy liggéey ni ñi waxtaanee foofu Touba nak non lañu ñuy ci yeneen section yi am. jërëjëf sëñ Fall ni nga ko waxee xam naa ñëwaat si yow administration boobu si lañ bëgg dugg ndax euh, jëwriñ Ahmadoul Khadim Amar mi mom mom mom, moom lañ ko dénk. jëwriñ gannaaw nuyo beeg siyaar bi bëgg nañ xam ñaata euh, cellule ñoo am ci islaaxu daara waaw Seigne Bay ginnaaw bi ñu nuyoo waa jëru mu Mouride yëpp di nuyu suñuy jawriñ dañ bokkal liggéey bi daanaka danañ mën a tàbbi ci biir question boobu noonu cellule yi nga xamante ne moo am ci daara ji ci jamono ji mën nañ ne eh, ñeenti cellule lañ biir Touba am nañ fa ñaari cellule muy cellule bu mag bi nga xamante ne moo war Touba gépp ak benn cellule bu nekk ci biir quartier bu bu tudd Firdawsi Ndakaaru gi it moom la ñuy ubbi si nii tey mi ngi soso woon depuis 2018 ñu tàmbali woon di liggéey ba tey ji yàlla dogal ñu war war a def ouverture bi amaat na tamit beneen cellule bu nekk ci dëkk bu ñuy wax jaxaw nekk fii ci booru Thiès jamono yi ñu toll foofu la daara ji toll am na nag ay membres yoo xamante ne yu tasaaroo la ci biir réew mi ak bitim réew. ci membre yooyu la ñuy des ndax euh, ku bëgg a nekk membre daara ji koo xamante ni bëgg na see tab bi nu muy def. waaw daara ji bi mu nekkee daara. la am mboolem commission yi nga xamante ne ñooy nosale daara yëpp commission yooyu am na ci bu tudd administration administration moomu moom moo gérer lépp loo xamante ne mooy intérieur daara ji ak extérieur bi képp koo xamante ne yaa ngi bëgg a dugg ci daara ji di nga fekk administration defar ay carte de membre yoo xamante ne dañ koy wecceeku mbooleem membre yi nekk ci daara ji dañ koy am waaye ki nekk gan bëgg a tàbbi ci daara ji loolu moo lay dugal ci biir daara da ngay wecceeku carte de membre léegi mën nañoo xam daa daara ji ndax am nañ ay lu mel ne groupe whatsapp yoo xamante ni dañ ciy nekk di waxtaan wala yu demee noonu. waaw jamono ji moom daa toll foo xamante ne képp kuy liggéey liggéey boo xamante ne bu bu yaatu la faaw nga jëfandikoo internet moo tax daara ji am na groupe whatsapp am na groupe facebook euh, youtube sax am na ko groupe whatsapp bi nag moom euh, cellule bu ci nekk am am nga sa groupe bopp. waaye naka noonu itam ci biir groupe whatsapp yooyu noonu commission bu ci nekk am nga sa groupe whatsapp yoo xam ne dañ fay dajaloo di fa di fa di fa waxtaanee ak di fa jàllale suñu information lépp loo xamante ne bëgg nañ mbooloo mi yëg ko ñu di ko fa jàllale. maanaam léegi ki nga xamante ne nii euh, fi mu nekk fi ngeen nekk sore na lool mu bëgg see tab bi moom nu muy def. kooku day jokkoog waa daara ji rek. ma laaj mooy ndax nit mën na see bokk te du teew. ni mu bindoo nii ki nga xamante ne dafa nekk fii ba Amérique wala mu nekk Italie gis daara ji ni muy doxee mu mu mu neex ko sañ naa jaar ci bunt daara ji muy administration ñu ñu ñu ñu ñu intégré ko waaye bu boobaa itam dafa am loo xamante ne moom lay warloo ak daara ji muy lépp loo xamante ne luy luy luy doxal daara ji la mu ciy participer surtout hadiye ji ak di teewlu ndax am nañ groupe whatsapp boo xamante ne ci la mbokk taalibe yi nekk su fekkee nag barab ba nga nekk am na cellule su boobaa moom teew daf lay war ci cellule bi ci saa yu ñu dajee amee ndaje wala saa yu ñu amee répétition. Mhm. jërëjëf jëriñ loolu loolu nekk na loo xamante ne lu am solo la waaye mënuñoo noppi benn yoon te duñ la laaj activité daara ji maanaam daara ji ndax. dañuy daje di jàng rek buñ bu waxtu daayira jeexee ñu dem wala am na yeneen yoo xamante ni sumb nañ ko ci biir yoo xamante ni seen i mbébét la. Hmm. daara ji seen yitte mooy euh, jàng ak jàngale ndax jëriñ leeral na ko suma juumut li ko sos mooy liggéeyal Sëñ ci ci xaside yi ndax jamono jamuy sosu fa mu nekkoon kuréelu xaside gu mën a toog jàng mawaahib bu tegu ci yoon jafe woon na gis. wala jësbul xulóob am Ahmadul Xadim da daan toog ci kuréel gi répété bu tàkkusaanu ajjuma jotee mu sol ay dàllam dem football yi ci loolu nag ci la ay boromi pas-pas dogu ci fas yéene xool seen mbokki taalibe yu mel ni ñoom ngir mën a ànd ak ñoom liggéey yël sëñ Tuubaa ci xaside yi ba jëlee fi loolu loolu nag moo doon premier activité daara ji mooy liggéeyal sëñ Tuubaa ci ndaw ñi di leen tarbiya di di di di leen teg ci yoon wi nga xamante ne moom la sëriñ bi bëgg ñu tegu ci. loolu nag mooy premier activité am ginnaaw loolu it la ca topp mooy at mu jot fas nañu yéene ziare ji ki fi nekkal sëñ Tuubaa ginnaaw loolu it bisub sëñ Tuubaa bi nga xamante ne sëñ Tuubaa dafa ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la saa yu ñëwee nag ma ci sant la yàlla bis boobu daara ji fas na yéene saa yu ñëwee mu koy taxawu ci Tuubaa ni ko mbokk taalibe yëpp di taxawoo. ci ci ci kaw loolu nag ci la ci la ci la dem ba nga xamante ne mën nañ ne loolu moom la jël comme programme waaye teewul lépp lu ciy jumtukaay yoo xamante ne war na koy jëfandikoo teg na ci bësam def ko projet ngir di ci investir. jërëjëf Ahmadou Khadim sëñ Fallou dañuy ñëwaat si yow ngir jëriñ daa wax léegi lu am solo muy daara ji li ko taxawal mooy jàng ak jàngale loolu nan lay demee. waaw jërëjëf kàddu am na solo njàngale mi ni mu dee mooy euh, mbooloo mi ginnaaw bi ko sosee laltaay bi ko laltaay suñu xaadim leeral na ci leeral naa ci mooy fexe ba pas-pas bu dëgër laltaay ko ci lu jëm ci wàllu xam-xam ak jàng ak jàngale. jàng jàngale boobu nag bokk na ci sunu méthode bi nga xam ne moom lañ ëpp doole muy sunu foor muy yëkkati xasida képp koo xam ne ñëw nga dañ la jàngal am na ñoo xam ne ñi nga xam ne ñoo yor culturel bi. ñoom ñi képp koo xam ne maanaam sa jàng soriwut boo ñëwee dañ la jàngal ba nga mën a liir xaside yi ba pare di mën di yëkkati euh, am na ci xalaat yoo xam ne tamit ñi ngi ci ngir bëgg a ut bërëb boo xam ne danañ ko samp kenn ku ci ne mën a jël sa njaboot teg ko fa ñu wut sëriñ daara teg ko fa muy jël njaboot gi di diñuy jàngalal waaye yooyu yëpp ay xalaat ak yu naal waaye comme mbooloo mi ñii ci lii ñii bari ay métier lañ yor ñii dëkk fa fasanti pour nga bale moo leen mën leen a dajale ci benn bërëb day xaw jafe sunu yéene ak sunu bëgg-bëgg mooy fexe ba samp daara joo xam ne nekk daara joo xam ne dara du génn ci biir lépp loo bëgg du jar ngay génn di ko jéggaani fen waaye ci xeetu xam-xam ak diine ak lislaam boo ñëwee ko ci mën a fekk waaye nag comme am ndorteel la ak tàmbali moom li ñuy def mooy lu ci rek lu jot ñu def ko fi ñu tolloogoon fi ñu toll nii mooy ci wàllum njàngam kuréel mii ñu nekk moom képp ku ñëw neen danañ la boole ak liñ am ak liñ man ci boole xam-xam ngir mën a tabax ay jàngkati xasida Sëñ Tuubaa seen seen for bi la ñuy des ndax wax nga ko muy xasida yi seen foor bi laa wax la ñuy des muy xasida yi te loolu mooy foruk sëñ Bamba mooy li nga xamante ni moo ko gënal fi mu ne daara ji gis nañ leen gis ngeen jàng mi neex na loolu te kuréel yi bari na tey ji bu meloon ni Jazboul Mouride wala mooy bi TV ñoo soxla woon daara ji lu ñuy def. waaw dañuy jaar ci bunt yi ñu war a jaar rek mooy soo ñëwee ci administration bi wax ak ñoom ñoom suñ ñëwee waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo cadre yi nga xam ne ñoo seq liggéey bi. bu ko defee ñoom suñ ko nangulee rek soobu yàlla moom ni nga ko bëggee dana la ko defalee waaw képp koo xam ne da nga ko bëgg rek foofu ngay jaar ci administration bi rek soo jaaree ñoom bu jaaree fi ñu war a jaar rek ba nit ñi bañ joxe accord ne war naa mën a rek soobu yàlla danañ ko def. day mel ne islaaxu daare ni bari na événement yoo xamante ni dana fa dem di jàngi. waaw ah wax di yàlla ndax islaaxu daaree ni moom Touba moom amul kenn koo xam ne nañu. asantuma laak si Ndakaaru ndax kuréel la goo xam ne jëmmi ni ni ni ni nit ñi mel rek maanaam soo ko doon saytu kuréel gu kuréel gi rek kuréel national gi. lu mu néew néew néew néew jëriñ yoo xam ne maanaam lu mat ay ñaar fukki jëriñ yoo xam ne wuute nañ yoo xam ne ay daayira yu ñu bokk. nga xam ne kenn ku nekk danga bokk ci benn daayira ñëw bokkaat ci bi liggéey bi. xam nga kon loolu pour mu yaatu ak ni ñi xam ko lu yomb la. beneen bi bis yu tamit bis bu xew danañu wax. isor sun dal dem jang ngir jëm Sëriñ touba wa mo xam bis yoy dégg touba bu ne rek dinañ ci am patch bo xamne ñu dal nañ ci beral loxo ngir suñu xam-xam ak doylo gu ñu dal suñu jang mu wér waaw. góor jërëjëf sëñ fallu ñom ay borom passif la ndax dem na ba fii fi nga xamantene fofu lañuy nek poroxan nekk fa ak jeurign Ahmadul Khadim mi lool lool yag na seen passif yag na lool liñu liñu liñu bëggoon laaj jeurign mooy euh, si wàllum administration bi la ñuy des ba léegi ndax daare bi am na li nga xamante ne mooy règlement intérieur. waaw daayira bi am na ay règlement intérieur règlement intérieur li ci jiitu mooy képp koo xam ne yaa ngi jokk ci daara ji dañuy bëgg nga mel melokaanu murit moo xam ngay jàng xasida moo xam nga doon membre simple waaye bëgg nañ lépp luy activité daara ji te nga cay dox nga mel melokaanu murit di sol bàyyi laxat sëñ bu wala caaya lépp luy niroog takkaay loo xam ne warul ab góor góor yàlla ci yoonu murit daara ji da koy tere waaw la ca topp mooy nit ki nga xamante ne dafa bokk ci kuréelu xasida yi mu respecté euh, norme yi nga xamante ne ci la kuréel yiy dox di teew euh, répétition waaye tamit di joxe sa hadiya waaye itam saa yi la daara ji soxlaa nga bàyyi sa yitte ñëw teew jërëjëf kàddu yi am na solo lool bëggoon nañ eh, jëwriñ eh, soññu tuuti rek seen kàddu lay wax mbooloo mi nga xamante ni ñooy seetaan daayira bi di islaaxu daayira yi. xanaa maanaam soññee sax danañu xaw a jafe ndax dañoo soññiwut waaye li li ëpp solo ci ndaw muy teel a xam bopp mooy mu teel a xam boppam xam gi sa bopp nag dana tax nga xam fi la yàlla boole ndax yàlla bu fekkee daf la dafa la sàkk sàkku aji bind. sak ay yenen mbindef ba nopi jël la bolé la ci mbindeef yi la ca gën muy doomu adama dayatu ko mu bolé la xeetu sayyidina Muhammad te moy xeet wi gën ci xeet yi sallallahu alayhi wasallam dayatu sa borom mu bolé la ak yaakaar yi jam ñi té ak ëlëk muy Cheikhul Khadim nga xamné mom ay tànneef yi tànneef la yor wa khayra khayratin ladayka daykat ndax ba sun borom tan lo wooye ci yawma ma alastu rabbikum ja demul ci li kenn tànnut daa dugg ci la yonent ba tànn tànn ci la ca gën sama borom boole la ci loolu nag boo ko xamee rek da ngay daal di mën a xam sa bopp xam gi sa bopp nag dana la yóbbee saa su nekk ngay topp ay jeexitam topp ay jeexitam nag mën nañ ci jàngat tuuti ci loo xamante ne suñu tolluwaay zahir rek lañ koy jàngatee ndax moom ba muy tuut tànk ca la teel a xam ne ngëneeli yàlla yi yàlla jagleelu ko benn peuple rek wala jagle lu ko benn siècle rek waaye yàlla def koo sàkk te du jeexal mu wàcce ko ci kaw mbindeefam yi mu taxaw temm ci di sàkku loolee ba tax mu naan ko wàcc al yamini ka saxaabin fi saqa a maymunatin fi shatatin wa fi raqa sama nekk na ko def mu mel ne saxaabatul rasul ñi nga xamante ne ñoo toppoon ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa te xoolal diggam ak euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata siècle la fi dox loole it taxoon ba mu ñëwee ngir jaayanteeg moom ba ba ba ba gaaral ko kaddu yooyu muy ki may seet su ma ko gisul woon te ne ma fii la tëdd fii la tëdd fii mooy bàmmeelam dinaa fa toog di ko liggéeyal ba la may sàkku ci ma am ko Cheikhul Khadim dafa ne ko yow de daa mel ne ñoo bokk bas-bas ndax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mi may liggéeyal su ma amul woon ci moom lu dul asamaan si ko tiim suuf si la doon dox it la ma bëgg ca moom dinaa ko liggéeyal ba am ko ndax ngëneeli yàlla yi di jeex te yàlla jagleelu ko benn benn jamono daf ko wàcce rek jagleel ko ki koy sàkku kon loolu war naa tax ñun ndaw ñi ñu xam ne dara jommuñu te loolu yi ñuy ñuy ñuy sàkku mënuñu koo amee ci lu dul sunu ndaw ci lu ndaw ndax jamono ngi ñëw boo xam ne lépp lu la yàlla mayoon daf koy nangu muy muy muy muy sa kattan sa taar sa xel say bët sa dégg lépp daf koy nangu kon jamono ji nga xamante ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi nekk sa digg doole. jamono jooju lépp looy fàggu lu nit du baax di am jomm la boo ko fàggoo da nga ci am lu koy sa njort Serigne Saliou Mbacke nag radiyallahu anhu da daan wax naan li lay tëjee buñ la dee gaaralal eh, melokaanu nit ak yàlla seytaane day taxaw ci sa wet naan la naan la kooku kenn mënu ko dab kenn mënta mel ne moom waaye loolu waxi seytaane la rek nee na roy koo mënta dab dana tax raw ku deful na yow kon ñu ngi bu baax di am mbégte bu baax ci seen teewaay fii nii tey ñaan saa borom. barkeelal eh, télé bi te fay len ci ngeen gi yiw ci barkeb Cheikhna Ahmadul Khadim jërëjëf Ahmadul Khadim jere sëñ Fallou xam naa sëñ Fallou kàddu yi ngay tagoto damay bëgg nga njàmbaase yàlla ci liggéey bu reuy bi ngeen xamni ne liggéey ngeen ko fi Ndakaaru moy taxawal fi li ni ndax Ndakaaru kat ñepp xamnañ ni fuñ ko mësaan tuddu bu ñëk ñepp dañ koy jappé barabub seytaane fo xamanteni iblis moko mom waye tay gis nañ mouride ñu melni islahu daare ni ñoo di fi samp lo xamanteni ni lu serigne Touba bëgg la lu serigne Touba di ndamo la ba bis bi tay ba ku fi ñew xol da nga japp ni sax ñu dëkk ci koñ bi la di amal cant lolé dama bëgg nga ñambaasaale ko ci kaddu yi nga xamanteni mom mom moom ngay jere jërëjëf kaddu yi amna solo euh wax deug yalla ñun amuñ ku ru serigne Touba te sëñ Touba bërëb bi saa bu ñu duggee ñun man man bokk mooy sama xel day dem ci ñetti guddi ndakaaroom yi sëñ daan wax ne su ko fàttalikoo rek day bëgg a jóg rek ngir ak tubaab yi jotawaat ak ñoom waaye loolu loolu man saa bu ma duggee rek loolu sama xel di jox tey ku fàttaliku ba mu kooree kooram nga ñëw ba egsi ñu ko. ñëwul ci bërëb bërëb bii mu defee ne day dem dogi kooram ñu fekk bërëb bu xat lëndëm ñu jël ubbiko ko ba ma xoo biir nee na ba mu sampee tànkam dere maam rab bi daa sar ba dere ji mbokk mi loolu loolu taalibe bu dugg Ndakaaru sa yaakaar Sëñ Tuubaa soo xalaatee loolu rek eh, loo loo loo bu doon xare la loo jiñ da koy xeeb kon mbokk yi fii fii fii bërëb la boo xam ne Sëñ Tuubaa alal Sëñ Tuubaa la yonent bi sallallahu wa sallam dëkk ba mu nekkoon ca lañ ko doon xeex ca dem ba ndangu ko tey màkka gépp ay jullit lañ madina ñëpp ay jullit lañ sëñ Tuubaa mii ndakaaru gi dafa war a dem ba ndakaaru gi moo mel sëñ la war a doon te sëñ bu ñu amee jàmm moo tax bu ñu amee xéewal moo tax tey jii ku mën a taxaw fi julli julli gu normal moom ma tax ndax bu pexem nooname amoon tey jii bis bii am kon lu waay di def rek sëñ Tuubaa nga war sant kon Islaahou Daarayni buy def alal sëñ Tuubaa la alal sëñ Tuubaa nag bu ñëwee ci li war a ñëw def ci li mu war a def kon li muy def maanaam maanaam li ma la a li ma bëgg a wax maanaam sama sama sama dër maanaam sëñ Tuubaa maanaam ñun alal sëñ Tuubaa lañ sëñ am kon lii ñuy def wuuteelu ñu ko ni maanaam bis boobee nga xam ne si la sëñ Tuubaa ñëwoon fii maam tubaab bi teg ko loolu mu ko teg kon li ma bëgg a wax foofu daal mooy ñun ay taalibe la ñu doon ay mourid lañu doon ay saarix lañu bëgg doon suñu tanki ak suñu jéego yi manam liggéey sëñ Tuubaa képp lañu yóbbu ak ngërëmal sëñ Tuubaa kon islamu daare ni mo lolo mo xamné mo lolo mo xamné du len taxul lañu dul liggéey fi ñuko taxawal nak muy maris ñoo ngi ñaan yalla bépp gox bo xam dafa nek fii ci Ndakaaru mo law ba daj ci barke seul khadim di am mbekté tamit seen site bi di len sant ak di len ngeureum di ñaan yalla ngeen laq ngeureumal Cheikh rafal ndax ab Baay kat loko ñaan lu làq ngeureumal serigne togn ko ko kon ñu ni liñ bëgg am moy ngeureumal serigne touba yeen yalla ngeen am ngeureumal Cheikh Ibra Fall ci barke Seexul khadim ko am ngeureumal Cheikh Ibra Fall nak am nga ngeureumal serigne touba kon nak contane nañ ci yeen seenum taxaway rafet na yàlla leen dem ba nga xam da ngeen dem ba nekk télé bu mag a mak ci aduna bi yëpp ñëpp kep bu xibaar bu euh, xibaar bu bu wër ci serigne touba mu ñew ci yeen yalla am nako ko nako yalla ko yàlla ko yàlla defal seenum taxaway rafet na bis bi mom bisub seigne touba la lu ci way def seigne touba nga defal ma ngi ñaan kep ku fi ñew yalla seigne touba faj aajo mo xam jaxara nga fi indi mo xam lo fu meuna indi rek yalla seigne touba safara ci barke khasside yi ci barke islaamu daare nii waaw jërëjëf jëriñ ki nga xamanteni moy Ahmadul Khadim Amar ñi ngi sant murid yi nga xamanteni ño ñoo safoon jotay bi bobak legi fi nga xamanteni ni moy Mouride TV waye fi nga xamanteni tamit tamit moy bi TV ndax ñun ak mom ñoo ànd li nga xamanteni moy liggey bi émission la won bo xamanteni mom da nek ci si mourid ñu nan ko émission daayira yi dañ leen di fatali mbolé murit bo xamanteni sa xel wala sa xalaat dajna ne kat war nga indi Jazboul mourid sa daayira wala sa tiant wala sa ziar inshallah bo ñu wowe muy bir rew mi mbaa bitti réew danañ bayyi lepp luñ doon def nini, wuy ci la buñ la wuy def ni waxtaan ak yow